islam yi ulul sharia nekk tamit jàngalekat ci ulul imaar ak madaris falaax yi nekk imaam xatib ci ay masaajidam nekk ñu xam ci saaxa bi ci wàllu daawa ak jàngale mu war ñu def ak bu am solo tomb bu ñëw ci jamonoom tomb boo xam ne aussi dafa intéressé lool ñi nga xam ni ñoo toog di ko déglu muy jeunes yi moo xam ñu góor ñi wala jigéen ñi euh, muy xuturatu fitnati nisaai lada shabab wa subul taxsin wa wasail najati minha aw shay min hada alqabil خطورة فتنة النساء والشباب ووسائل النجاة وسبل التحصين منها mooy danger bi nekk ci fitna yi jigéen ci jeune bi nga xam ni ak jullit la xutura boobu moom la bëgg a waxtaanee ak tamit yoon yi nga moyens yi nga xam ni ci lañuy fexe mucc ci fitna yooyu ak yoon yi nga xam ne buñ ci jaaree tamit ci la ñuy protégé wu sangewu ci fitna yooyu loolu intéressé na ñu góor ñi intéressé na jigéen jigéen gi naka lay fexe ba fitnaam maanaam du fitnaal jeunes yi jigéen bi naka lay fexe ba du fitnaal jeune jeunes yi jeune bi aussi naka lay fexe ba du fitnaawu ci jigéen bi kon loolu moo doon am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 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli si yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala si turam yu rafet ak melokaanam yu kawe mu jël xéewal bu bari bu ànd ak yërmande ak barke mu dolli ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam defal ko ay soxnaam ak ay saxaabam radiallahu anhum ajmain ak képp koo xam ne teg na tànkam si njàngale lislaam ba bésum pénc gannaaw loolu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte bokk ak yéen ci lël bi nga xam ne adresse bi ko ëmb mooy al manhaju saxiixu lilshabaabi almuslim fi l wa daawa muy méthode bu wër wala yoon bu wër ñeel ndaw jullit ci wàll pas-pas ak woote jëmale ci yàlla loolu maanaam tomb bu am solo la ngir ne nit ki li muy dund su xamul li ci wër ak li wërul mën na dem ba jaxase leen te jamono jooju ci la ndaw yu bare bari toll xamuñu lan mooy pas-pas bu wër xamuñu it nan lañuy wootee jëmale ci yàlla ci anam bi ko lislaam jàngale tomb bi ñuy waxtaanee moom mooy xutuuratu fitnati nisaai lada shababi wa wasailu najaati wa subulu taxsini minha danger bi nekk ci fitna jigéen ci ndawu jullit maanaam danger yi nga xam ne day jóge ci jigéen di dem ci ndawu jullit nga xam ne mën na ko yàqal unwaan bi ma doon liir léegi mën na ko yàqal pas-pasam mën na ko gàllankoor it même ci daawa bi muy daawa mën na ko gàllankoor si bunt yu bari loolu dina feeñ si biir waxtaan bi moo ak yan yoon la ñuy jaar ba mucc si fitna yooyu loolu moo tax waxtaan bi ñu ngi ko tënk si ay tomb tomb bu njëkk bi taarifu fitnati nisa dinay xamle lan mooy fitna jigéen ñaareel bi xataru fitnati nisa danger bi nekk ci fitna jigéen ñeenteel bi suwaru suwarun muasiratun min fitnati nisa mooy ay façon yoo xam ne ñu ngi koy dund ci fitna yoo xam ne day jóge ci jigéen nga xam ne ay façon la suwar wala namazij wala anwa yoo xam ne ñu ngi koy dund te mu nekk ay fitna mun a yàqal nit ki lu bare bare soir yooyu nag dafa bare ay façon am na si yoo xam ne dafa aju si pas-pasam am yoo xam ne dafa aju si wàll colinam am yoo xam ne dafa wàll si wàll taaram am yoo xam ne ay façon maanaam yu yaatu la yoo xam ne tënkuñu ko ci lii mën na ñëw ci kàddu mën na nekk ay image mën na nekk aussi ay façon yu bari dinañ ci cité yu bare bari ñeenteel bi wasailu najaati wa subulu tahsini minha moyens yi nga xam ne ku si dellu rek dina la musal si fitna yooyu ak façon yooyu lu ñu bare bari ak aussi yoon yi nga xam ni ci la nit ki di ñoŋalee boppam si fitna yooyu kon ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa mu musal ñu si bépp fitna bu feeñ ak bu nëbb di ko ñaan mu jàppal ni ñu ba ñu mën a faram tomb bi tomb bu njëkk bi bala ñuy dugg ci tomb bi si ka amul ne jigéen moom mooy genn wàllu société almara nisful mujtama moom mooy genn wàllu société moom mooy jurit beneen genn bi mooy beneen xaaj bi kon jigéen boo xoolee dëgg-dëgg moom mooy société moo tax ñuy wax jigéen moom mooy école bu njëkk si ndaw ndaw wow mën na nekk góor walla jigéen maanaam beneen xaaj bi jigéen moo koy jur mooy def si moom pas-pas def si moom ay jikko ay qualité def si moom xeetu dundin loolu moo tax jigéen boobu su baaxee société bi day baax su yàqo yi lu baree bari société bi day yàqu loolu moo tax caaxaankat yi dañuy jàppee jigéen def ko benn looba muy objet boo xam ne ci la ñuy fajee seeni aajo moom lañuy ñuy foowee di ko yàqee lépp lu ñu bëgg yàq jigéen boobu moo jur yonente yi kon am na wàccuwaay jigéen boobu moo jur ustaas moo jur njiitu réew yeeg buur yeeg préfet yeeg ñooñu nga xam ne nit ñee leen jox ay martaba yu kawe société bi ñooñu jigéen a leen jur loolu moo tax jigéen yooyu nag am na si ñu baax ñoo xam ne yàlla subhaanahu wa taala moom moo cité wax si alquran jigéen bu baax nan lay mel lu mu wax fa qaanitaatun xaafizaatun lil xaybi bima xafizallah kon kooku yàlla moo définir jigéen ju baax nan lay mel jigéen bu baax boobu it am na ku nekk si wetam nekk jigéen bu bon am ay musiba yoo xam ne musiba yooyu toujours pour góor mucc si musiba yooyu dafay bari musiba yu bari nag kon ku baax ki taxul ñuy wax ki nga xam ne dafa yor ay musiba te mu mun yàq ndaw mi kooku ci la suñu waxtaan di gën a tënku kon taarifu fitnati nisaa hiya tajawuzu al alaaqati alsharciyati bayna alrajuli walmarati wa hiya tatamathalu fii ma yali mooy jéggi dayo si relation bu charia tëral diggante góor ak jigéen l'islam dafa tëral relation bi war a am ci góor ak jigéen fi mu war a yem relation boobu su fekkee dem nañ ba dépassé ko jéggi ko loolu mooy jur ay fitna yàlla subhaanahu wa lu gën a bari day wax si wa tilka xududullah wa man yataadda xudud allahi faqad zalama nafsa lii mooy dayoo yàlla yi lii mooy ay frontière képp koo xam ne jéggi na frontière yi yàlla rëdd kooku moo tooñ boppam frontière yi nga xam ne moom la lislaam tëral diggante góor ak jigéen su ku góor ki demee ba jéggi frontière yooyu walla ku jigéen ki jéggi frontière yooyu boobaa fitna day judd mu ngi mel ni dawalkatu oto bu burle foo di dawal si gis maanaam foo bi nekk rose mu ñëw mu ne dama yàkkamte rek xaaral ma dem loolu mu def mën na jur lu ñu tuddee scandale si oto yi ñëw walla yi nga xam ne ñoom lii bi dafa nekk vert si ñoom mën naa am ñuy daw si vitesse moom mu ñëw mu ne dama yàkkamte mënuma taxaw rek mooy ni problème bu mag loolu nag noonu lay amee si dundin dundin bi dafa am mbir yu bari charia danañ jox carton rouge ne yi baaxuñu ay fitna la ku ko jege yàqu ku ko jalgati aussi yàqu ku ko jéggit yàqu am na nag yu bari yoo xam ne yu baax la mais doomu aadama day dem ba yu baax yi du ko doyati day dem di dugg si yi aram si moom kon relation yooyu nga xam ne charia moom moo ko tëral ne kii jigéen la yaay la am na ay àq àq yi moom lañ ko war a jox kii doom bu jigéen la moom it am na ay àq fii lañ war a yem ak moom soxna la moom it am na ay àq fii lañ war a yem ak lii la moom lii nga moom yow ko góor gi kii maam bu jigéen la kii jigéenu jàmboor la si yow maanaam xaaju jigéen yi ni leen lislaam tërale jigéen bu nekk dafa am foo xam ne foofu nga war a yem ak moom noonu nga war a dundee moom soo demee ba jéggi fi la lislaam yem loo da ngay tooñ moom it bu jéggee fi ko lislaam yem loo day tooñ mën na jur ay fitna loolu nag mën na dem si wàll pas mën na dem si wàll jëflante mën na dem aussi si wàll jaamu yàlla fitna yi dafa bari dina wax façon yi yooyu nag mën nañ ko tënk si al ishqul muharram si wàll mbëggeel wane mbëggeel léeg-léeg góor ak jigéen nga xam ne ay jaambur lañ asalaamaaleykum waaleykum salaam loolu mooy nuyoo lislaam suñu jéggee foofu rek léeg-léeg musiba day ñëw namoon naa la maa la raw loolu si ñaar ñoo xam ne sëy doxul seen diggante loolu jaaduwul waru leen bay rawante si nammante loolu jaaduwul loolu ñeneen ñoo ko moom ñu dul yéen ñi nga xam ne sëy boolewu leen léeg-léeg nga gis ku wax ne yow yaay sama nuurul qalb loolu njuumte la parce que kaddu yooyu côté aqida mën na nekk lu garaw li war a leeral sa xol loolu yàlla la wala alquran ak ngëm bu nekkee nag diggante góor ak maanaam jëkkër ak jabar ñoom mooy wax kàddu yooyu suñ si jubluwul leneen mën na bañ a egg si yenn yu garaaw yi parce que ñoom ñaar amaana seq nañ lool mais koo xam ne jàmbur la même ki ngay labat sax amoo droit di jëmale kàddu yooyu si moom parce que da ngay labat mayaguñ la jarul nga ko chéri loolu daganul waragul dox seen diggante wala nga ko yow daal vraiment yaa yore takkandeer beeg yu mel noonu wax yooyu nga xam ne day jay ku jigéen nga xam ne mën na ko indil fitna yu rëy rëy wala ku góor ki ku jigéen ki en jigéen bu bëggee góor moo koy tàmbalee kàddu yooyu yooyu bu ko waxee yow dangay ngay jàpp ni ah kii di xanaa lii da ko rëcc kàddu bi mu jëmale si man mun nga wax subhanallah léeg-léeg mu ne subhanallah la loolu day dal loolu fitna la maanaam ki ngay wax subhanallah mu ne la ban subhanallah loolu rek fitna la commencé na di tijji ay bunt kon lu jëm si wàlla lees loolu war nañ ko moytu diggante góor ak jigéen beneen bi it an nazaru ila nisaai l ajnabiyat xool si di xool di fixé jigéen boo xam ne jàmbur la si yow loolu ci fitna yi mën na la jural fitna am na góor yoo xam ne léeg-léeg day gis ñuy xool jigéen ba mu bëkk miir duñ ko tey di ko xool di ko xool ba faqasalu loolu it fitna la parce que ku jigéen ki léeg <coughs> ni muy solwee day provoqué ku góor gi léeg nga gis ku jigéen nga ko yow lu tax doo sol lu yiw mu ne man bu ma woddee su ma nuyee xale yu góor yi duñ ma faale duñ ma xoromal mais su ma ñëwee ma dangal sol yooyu nga xam ne jaaduwul su ma nuwee ñépp a may fay du ñu yem si fay bi rek mais dañuy taaliq commencé di wax ah maa ngi sa waaw yooyu nga xam ne seen colin yu bon yooyu colin yooyu yéen ay jeunes ngeen xam ngeen damay junj rek beneen bii it day dellu si liy dox diggante góor ak jigéen ci ay kàddu yu ñanga yu yu yu aram loolu boo leen gisee téere boobu nga xam ne moom mooy muqaddimatul axdari téere boobu gis ngeen si muqaddima ba nee na daganul si mukallaf muy bànneexu si lan si kàddu ku jigéen ki mooy talazzuz bi kalaamiha maanaam jigéen boo xam ne jàmbur la si yow ngay bànneexu ci kàddoom dina ñëw si biir façon jokko yi am diggante góor ak jigéen yi góor yu bare bare bare bari dañ ci am fitna benn waaye day laaj nee na góor boo xam ne dafa woo xale bu jigéen ñuy waxtaan ba mën yu génn si moom ndax kooku day sangu janal xam nga feebar la maanaam yow nooy jokkoog nit di wax ak moom di wax ak moom ba mën yu génn si yow kooku feebar la te loolu day am ñaata xale yu góor ñooy xëccal xale yu jigéen ñi ligne wala xale bu jigéen bi dugg ligne ngeen di jokkoo jokkoo yoo xam ne dara lalu ko lu dul bànneexu wala ku jigéen ki di wax di la jéem a charmer xëcc si wax jaar foofu ba da ngay dégg nit ki muy jokkoo ku ki ba muy dégg hayya ala salaa mu continuer ba julli bi jeex soo koy mu ne waxtu bi jeexagul ngir jigéen dëddu loolu julli léeg nga war a dem classe war a jàngi jigéen dawloo la jàng ñu ne alfalaax la ñu nekkoon Pikin am na kër yi jege foofu yenn xale yu góor yi bu ñu gisee xale yu jigéen yi toog foofu léeg dañuy dem jënd wuti baraada ak li ñoo teg nit ñi di jàng ñu nekk ci biti di naan ataay ngir ay xale yu jigéen ñoo leen dawloo jàng xale yu jigéen yi la dawloo jàng kon loolu dañ ko war a moytu léeg ñu bare bari li leen di fitnaal mooy relation yi ñuy am ci côté jigéen ci média yi léeg benn xale bu góor day am benn émission wala ku jigéen ku am émission ñuy jokkoo ba mu jural leen fitna dama dégg sa kàddu kàddu bi daal mënuma ko muñ loolu demul léegi dem na ba si xiyaam yi xale bu jigéen di wax man li ma yóbbu xiyaam mooy baatu diw dem dem ba mu jur xale bu jigéen bi dem wër xale bu góor ba ba ñëw ne ko ah man daal yaay bañ may naa la sama bopp loolu kañ jaru allahu akbar subhanallah la ñu wax loolu yëpp ay fitna ubbil seen bopp ay fitna yooyu it nañ ko moytu bu baax a baax waa ji daane ñu gaaw parce que am na beneen lii kon ñu dem si fooy dinaa ko fi bàyyi boo leen liiree di ngeen gën a comprendre ñu bëri xataru fitnati an nisaa fitnatu nisaai min ashaddi l fitani allati yataarradu laha al fitna ay façon am na fitnatul maal waaye fitna jigéen buy bàyyi ko si jigéen moo gën a tar gën a garaaw ci façon fitna yi gaar doomu aadama lool moo tax Usaama bun Zayd radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa taraktu baadi fitnatan hiya adarru ala rijaali min annisa rawahu muslim yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na bàyyiwuma sama ginnaaw fitna boo xam ne moo dàq lor góor ni jigéen maanaam fitna yi dàq yàqal góor gën a mun lor góor bi ci gën a garaaw yi ma bàyyi sama ginnaaw mooy jigéen ndax weesu wala weer yi weesu dégguleen leen woon benn journaliste bu siiw ah ñu ne moom benn xale bu jigéen ñoo dem ci benn hôtel di def naka sudul noonu ba li mujjee foofu mooy dañu mujj jël journaliste bi tëj ko ñu ngi dem si média bi bi ñu demee tribunal di wax wala ñuy def enquête bi xale bu jigéen bi nee na dama ko waxoon maanaam nañu foo dong mais moom mu jël awram dugal ko sama awra ñu jël ku góor ki tëj ko ku jigéen ki ñu bàyyi ko loolu moo tax jigéen yi léeg-léeg dañuy jaar ci buntu al ibtizaz ibtizaz mooy chantage jigéen yu bare bare bari foofu lañuy jaare yenn xale yu góor yenn contraire bi day am nga gis borom société ay xale yu jigéen yu bëgg liggéey mu ne leen pour ma jox leen walla ma boole leen sama societé faw aussi ngeen jàppale seen bopp dam leen di jàppale ngeen jàppale seen bopp loolu waxin la mooy léeg bu nit ñi ñëpp wàccee foo mag yow ñu dem ci hôtel sàngam walla nga fekk ma sama bureau jigéen ñu bari lañ koy nangu tey ñiy chantage ay xale yu jigéen wala xale yu jigéen yi chantage ay borom daraja mën nga nekk boroom xam-xam wala borom ndomb tànk bu rëy ñu jaaree la foofu ba fitnal la toj sa kër abi saidin alxudri nee na عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na àdduna de lu neex la xolwatun lu neex la si boo ko mosee bànneexu àdduna dafa neex lool beneen biit xadira dafa naat dafa taarul su fekkee yow ku bëgg àdduna nga àdduna lu neex la waaye nag yàlla daf leen wàcce ci àdduna daf leen ti ngeen ay kuutaay yàlla subhaanahu wa taala fa yanzuru kayfa taamaluun xool lan ngeen di def ci lu baax ak safaan yàlla dala wàccee si àdduna léegi mu ngi lay xool ndax yow da bokk si ñu baax wala da ngay bokk si nitu safaan yi yonent bi salaa sallam bi mu waxee loolu ba ñépp xam ne kon àdduna jaaruwaay la te bu nekkoon rek jaaruwaay boo xam ne buñ fi jaaree rek mu jeex waaye nag yàlla subhaanahu wa taala ku nekk mu ngi lay fuglu di xam si lan ngay xëy ak lan ngay gont si lu baax la wala safaan moo tax yonent bi salaa sallam teg si fattaqu dunya nangeen ngeen moytu àdduna na ngeen moytu fitna àdduna wattaqu nisaa na ngeen moytu it jigéen moytu leen jigéen borom xam nee nañ moytu fitna yi bàyyeekoo ci jigéen ndaxte fitna bi njëkk wàcc ci bani Israil mu ngi jóge ci jigéen yemul foofu daf lay yóbbee sa ñuy reyante di tuur dret loolu day am léeg-léeg nga ne kii mooy maanaam sama génnaale ah dama bañ tudd yenn turi kii lay génnal ma gis ko muy génn diw ñaari jigéen yi ku nekk jël coquette kii yàqu bët bëtu jaamur kii yàqu bopp jàmm ngir xëccoo benn góor nga gis jigéen buy sëy muy def li jamono di tuddee mbaraan seq koog yeneen góor jëkkëram bu xëyee moom it am na ay góor yu xëy ci si këram wala sa du yem foofu jamono ji appartement yi ñoo xew da wax sa waa kër maa ngi liggéey nga dem sa apartement gaa ji la fekk foofu sa jëkkër du xam looy liggéey sa waa kër duñu xam looy liggéey fekk yow jigéen nga boo xam ne dangay jaay sa bopp ku la gis nag nga yéem ko ngir ni ngay fonke sa bopp ni ngay toppatoo sa bopp ñu ne la kii jëkkëram mu ngi koy defar fekk moom mu ngi séq ak yeneen góor yoo xam ne jàmbur lañ si moom te loolu bari na lool am na si biir étudiants yi ñu gën a bari li ñu tuddee an nikaahul urfi loolu bari la si ñaari étudiants yoo xam ne ñu ngi sëy te seeni parents xamuñu ñi ñu ngi sëy dañuy am bourse wut nañ seen benn appartement suñu xëyee dañuy foofu lañuy ñuy daje su ngoon jotee ku nekk ñibbi këram wala ñenn ñi di def nikaaxul mutaa comme ni ko chia di defee mooy sëy yóbbal sëy boo xam ne dañoo fekk ñu ngi jàng rek jëkkër ak jabar lañ mais jàng bu jeexee jeex na loolu lu garaw a garaw la yi fitnal jigéen walla fitna yi jóge ci jigéen mën nga ko tënk ci ay mbir léeg-léeg seytaane daf ci laxasu seytaane mooy noonu nit bu njëkk yàlla moo ko wax ne noon bu biir la ñeel leen bu bëggee yàqal nit ci jigéen lay jaare loolu moo tax yàlla subhaanahu wa taala ne zuyyina linnaasi xubbu shahawaati min ku mel ni saxaabi bu mag bu ñuy tuddee alxasanul basri rahimahullah bi muy sara aaya bi nee na zuyyina ay zayyana lahum moo taaralal nit ñi bëgg bànneex si jigéen beneen taabii bu mag bu ñu tuddee said ibnu musayib rahimahullah nee na maa yaisa sheytaanu min cheyin illa ataahu min qibali nisa nee na seytaane mosul naagu si lenn seytaane du découragé nee na lu mu bëgg si nit daf koy jaare si jigéen lu mu bëgg si yow mu def pexe bu ne te ko da koy jéem a jaare ci jigéen ba am ko beneen boroom xamal ci salaf muy abu salih samban rahimahullah nee na balaxani anna aksara zunubi ahli nnaari fi nisa nee na egsi na si man bàkkaar yi ëpp yi dugal nit ñi safara mu ngi jaare ci jigéen ñi ibnu mas'ud radiallahu anhu daan na wax an nisaau xabailu sheytaan nee na jigéen ñi ñoom ñooy fiiru seytaane yi seytaane bu la buggee këppatal si jigéen la lay këppatale xabaayil moom mooy masaayiduhu maanaam fii seytaane di jaar pour am la comme moom mooy sa noon bu njëkk fi mu lay jaaree lu gën a bari si jigéen la lay jaare ngir ne dafa bari góor yoo xam ne bu ñu toogee jigéen rek dañuy am faiblesse faiblesse surtout bu commencé di wax kàddu yi di damm baat bi loolu fekkee xol bi daa feebar ku góor ki loolu léeg-léeg sax du wax mais xet bu jógee ci ku jigéen ki parfum bu muy laal ak wala cuuraay bu mu jege su la jegee rek nga gis ngay noyyi bu baax ngay noyyi ba loolu indil la fitna wax wala fitna jëf fitna yooyu alquran junj na ko si yonte yàlla yusuf alayhi salaam gis ngeen bi mu jaaree si kanamu jigéen yi Yuusuf nu mu taaroon jigéen yi nu ñuy def lan la yàlla wax qattaana qattaana siixatul mubaalaga yore paaka kenn romb de ngay dagg sa loxo ba mu dagg te yëgoo ko bi mu jàllee ku nekk xol loxo mu fekk amatoo loxo fekk dagg nga ko te yëgoo léeg-léeg dangay gis xale bu góor boo xam ne day miir si xale bu jigéen lu ñuy miir day dem ba dof ñu tuddee ak jonoon fanoon safaan bii day am dangay gis xale bu góor boo xam ne moom it jigéen da koy miir lool walla jigéen boo xam ne xale bu góor moo ko miir lool doo leen dégg léeg-léeg jigéen day day bàyyi seen famille ñibbil ku góor te sëy doxu seen diggante soo ma taqi soo ma taqul yëpp yow laa bëgg léeg dina bëgg góor ba mu jaral ko mu jot ak ak ndeyam léeg mu jaral ko ñu génne ko kër gi ba wax ñu ne ah mbëggeel daal moo lor jàmbur mbëggeel bu baaxul kon seytaane léeg aussi faible bi nekk ci doomu aadama ci kanam fitna yi day waral ku góor mu loru ci kanamu jigéen moo tax yàlla ne wa xuliqa al insaanu daifa sufyaanu sawri rahimahullah bi muy firi aaya bi nee na almaratu tamurru birrajuli fala yamliku nafsahu an innazari ilayha wala yantafiu biha fa ayu cheyin adafu min hada nee na jigéen léeg-léeg day romb ku góor ku góor ki day dem ba du munati maîtriser boppam du munati dëddu ku jigéen ki da koy xool di ko xool ba du munati maîtriser boppam te du jëriñoo si ku jigéen ki nee na ba lor moo gën a métti lii yow koo xam ne yow yaa ngi koy xool di ko xool di ko xool ba nga loru beneen biit li nga li tax ngay xool jëme si moom munoo ko jot loolu moo tax théâtre yi daw Sénégal yëpp yu gën a bari wala film yi aw yëpp affaire amour lañuy jàng mbëggeel film Inde ban njëriñ moo si nekk li ñuy jàngale ñaar la muy xërëm ak mbëggeel te ñu bare bare bare dañu bëgg film yooyu li ngay seetaan foofu mu lay lor soo paree nga ne léegi naa ko jéem a wàccee si société bi kële ni mu def ba réussir si film bi man it noonu laay def ba réussir léeg nga dégg kenn ñëw ne la yow walla di wax mboqam bu jigéen ne ko yow kan mooy sa coof mbaa am nga coof jigéen si lislaam dafa xaram mu am far yàlla daf ko tere si alquran yàlla mu ne wala muttaxidaatu axdaan mu waxat wala muttaxidi axdaan alxadan moom mooy far jigéen daganul si moom jigéenu jullit muy am faru biir waaye nag dagan na mu am ku koy labat léeg-léeg na ngay labat jigéen ñi ñëw ne ah yow sa cox bi ñëwoon na fi di la tooñ mais far moom daganul xale bu jigéen di wat diw laay génnal foo leen di jëm kon dagan moo tax si aaya boobu it alxaafis ibnu xajar al asqalaani wax na si xadis bale nga xam ne moom la yonent bi salaa sallam wax fattaqu nisaa mu ne inna fitnata inna alfitnata binnisaai ashaddu min alfitnati bi gayrihinna wa yashhadu lahu qawluhu taala zuyyina linnaasi xubbu shahawaati min annisaa fa jacalahunna min cayni shahawaat wa badaca bihinna qabla baqiyati alanwaa'i ishaaratan ilaa an ilaa annahunna alaslu fi dalik nee na lii di fitnay jigéen moo gën a tar yeneen fitna yi mu mun a doon nee na loolu li koy firndeel mooy wax bi yàlla subhaanahu wa wax ne taaralal nañ nit ñi bëgg bànneex ci jigéen mu ne yàlla subhaanahu wa def loolu muy jëmmi bànneex mu tàmbalee ko si yeneen façon bànneex yi nga xam ne doomu aadama bëgg na mu wane loolu mooy cosaan si doomu aadama mooy bëgg bànneexu jigéen beneen bi liy waral loolu yëpp noonu lislaam yi noonu lislaam yi dinañ xeexee ñu bare bari jaare leen si ay jigéen noonu lislaam yi léeg-léeg dañuy yàqal ku gëm yàlla jaare ko si jigéen loolu cheikh bi nee na bi dafa jot moo tax kon yu bare bare ngi fii naa fi bàyyi fooy insha allah léegi façon yi nga xam ne góor yu bari jigéen ñi dañuy jaar foofu ba yàqal leen lu bare bari léeg fitna yooyu day jaar ci wàll pas ku jigéen koo xam ne amul pas bu wër bu demee ba sentir ne ku góor ki day góorgóorlu ci diineem léeg-léeg bu yàq boobu mën na dem ba mu yóbbee ko mu defal la pexe bu ne pour jot si yow ngir yàqal la léeg-léeg day jar yenn jigéen yi ba ñu lay yóbbu si sëriñ ngir jëm la njabar ba ngeen bokk néegu sëy walla ngeen di ànd am na benn waay bu jàmbar moo doon nodd di nodd mais jigéen yu mel noonu ñoo ñëw jaar si moom ba daanaka sax moo dàq ko tardé dem jàq léegi loolu fitna la tey jigéen yi nga xam ne ñooy dund si keppaaru lislaam am na si ñu bare bare tey dañoo gëm lii nga xam ne moom mooy njabar te dañ si dem am na si jigéen boo xam ne man xam naa ko kuy góorgóorlu la si sunna wax dëgg yàlla mais bëggoon benn góor boo xam ne aussi day góorgóorlu sunna taxoon na ba ñu jaxase ko kenn ñu jox ko benn baat bu tudd euh, mu koy wér yàqaha dama bañ a wax euh, maanaam niñ ko joxoon ba benn jour si kayam laa ko gis bu leen neexee it ma wax moo damay bañ ma wax aussi après gars yi mokkal ko ñoom ñu dugg etu nit ah waaw loolu lu garaaw a garaaw <laughs> te gis ngeen baat boobu baat boobu nu mu diisee boobu la ku jigéen ki doon li ah donte yàlla dogaloon na ñoom ñaar ñu sëy yàggul ñu am benn doom far ku góor ki gaañu yàlla ko yàlla yaram beneen biir bokk na si yooyu fitna yoo xam ne day jaar ci seeni colin ñaata jigéen ngay gis tey ñu solu fekk dañoo rafle colin yooyu léeg-léeg day yóbbee xale yu góor yu bare bari ba ñu sanku ci bunt boobu xale bu jigéen ñëw sol yu yaraax ñëw di jaar sa kanam ñaata xale yu góor ngay gis ci bopp koñ yi ci potu làmp yi ñu taxaw di góolu sol rafet ziina yi muuru da ngay gis ci xew yi amee koo xam ne nee moom benn bis la am zuru céetam mu dem tabarruj tabarruj gars yi ñëw di ko mboq yow li ëpp na mu ne ah benn jour la rek yàlla na ma jéggal loolu day am dem naa benn dëkk fii defoon benn waxtaan benn raison la <laughs> boo jëlee oto une heure de rek nga egg du ma tudd mais jigéen ñi fay yëngu si wàll sunna subhanallah man damay ñëw ba waxtaan bi ma doon def dama ko mujj def si wàll hijab ba ñoom ñu ne ñoom est-ce que man maa taxoon ñu jóg mais ñi ñëwoon daanaka ñëpp dañu tabarru te ñoom lañuy xoolee foofu bëtu ñi ñooy yëngatu si wàll sunna ngir xew bëgg xew loolu nag léeg-léeg moo xale bu góor jaar si ba ne xale bu jigéen bi colinam yi wala lii mu sol lii marqué na ma lu mu lay yóbbee nga ne ah xaaral kii moo wuti ko soxna moo jigéenu tàkkusaan jar naa tey gis ko tàkkusaan rek mu miir loola nga dem wuti ko soxna problème yu bare bare day juddu foofu léeg-léeg day ñëw si wàllu taaram am na façon taar yu bari lislaam da ko tere jigéen lu mel ni wat kawaru yéen mooy li ñu tuddee am nams mooy li ngeen tuddee épili loolu lislaam ko tere jigéen yonent salaa salaam nee na yàlla rëbb na jigéen bu koy def ak ki ko koy defal moo xam wat bi walla wàññi bi ñaar yëpp lislaam da ko tere te li doy waar da gis barab yu bari yenn góor yi ñoom ñoo koy defal yenn jigéen ñi di leen wàññi te am na barab yoo xam ne jigéen ñi buñ bëggee defar seen bopp si ay góor la dem ñoo leen raxasal seen bopp di laal seen cër léeg jigéen yu bari noonu la ñuy jaaree aussi suñu demee si barab yi nga xam ne foofu la ñuy ñawee dañuy am relation yu mag a mag a mag ak téere yi bu lay natt di la di laal fu mu warul laal boo ko yemal sa place mu ne ah dam lay natt lan moo tax duñu tàggat jigéen yu mun ñaw ñiy ñawal seeni moroom jigéen loolu bari na maanaam tomb bi it <laughs> waa mu ngi xëcc fooy am na ñoo xam ne aussi si côté gëtt mooy parfum ñee aussi jigéen bi gis nañ ko rek moom mu ngi wattu ndel ndelam boobu marqué bi ba loolu jural leen fitna yu rëy a rëy am na façon jigéen yoo xam ne aar la ñuy yëngatu boo leen gisee da leen di jaawle ak ay góor te ñu góor yu bare bari bari dañ leen di topp waaw nee na mën koy wala yenn saa sa da gis ñu mel ni ñu ñuy wax ay góor jigéen dañuy dugg si bunt yooyu beneen bi it fitna yi day ñëw si jigéen bu bari génn parce que liy cosaan si jigéen si charia daa war a des këram warul génn lu dul si ay charte mais jigéen bo <laughs> boo xam ne indee nga génn jigéen charia dagadul mu génn lu dul si ñàkk ñetti charte bu njëkk bi mooy wujudul xaaja mooy aajo am mooy cause tax nga génn cause bu charia nangu ñaareel bi moom mooy iznul wali awi zawj mooy mu am ndigal si kilifam wala boroom këram bu fekkee am na borom kër beneen bi ñetteel bi buy génn mu bañ a tabarruj mooy génneeg taar boo xam ne day génne cër yi nga xam ne moom mooy ay yaramam mu feeñal ko nga xam ne yeneen góor dañuy fitnawu si cër yooyu bokk na si fitna yooyu aussi mooy jigéen boo xam ne day fecc si kanamu ay góor walla di défilé si kanamu góor léeg-léeg muy wane cër yoo xam ne day agressé ay góor moo tax yàlla subhaanahu wa nee na wala yadribna bi arjulihinna li yulama ma yuxfiina min na mu ne jigéen ñi bu ñuy dóor seeni tànk bay xamle seen seen taaru biir yi am na góor yoo xam ne taaru biiru jigéen daleen leen di fitnal jigéen bu ñëw di yëngatu walla di daw wala di dukkat sa kanamu ay góor léeg-léeg ñu ne ah yow sa baaju bi neex na lool sa yëngatu bi neex na parce que kàddu yi ñuy dégg loolu day gaañ ñu bare bare ci góor yi beneen bi aussi mooy jigéen buy charmer góor te yàlla subhaanahu wa nee na fala daana bil qawl fa yatma alladi fi qalbihi marad wa qul na qawlan maarufa am na jigéen yoo xam ne léeg dañuy wax ba xale bu góor bi di jooy ngir bànneexu si kàddu ku jigéen bi léeg nga gis jigéen boo xam ne buy wëy yenn xale yu góor yi dañuy wax ñun wëy yi ñu neex mooy wëy yu sàdd yi léeg-léeg toog di ko déglu di jooy parce que waxu ku jigéen ki day egg sa biir loolu feebar la beneen bi am na fitna yi judd si wàll joxante góor ak jigéen loxo jigéenu jàmbur nga ñëw jox ko loxo léeg nga téye loxo bi sa yaram tàng seytaane di xam nga téye loxo bi téye loxo bi léeg nga dugal baaram foo dugal te koy ni mooy joxe te loolu yëpp lislaam na ko aramal beneen bi it mooy wéet xale bu jigéen boo xam ne jàmbur la si yow wala jigéenu jàmbur si yow te loolu daganul wala dem sa ba jigéen boo xam ne du jigéenu jullit nga dem di ko denc walla jigéenu jullit bu bu jigéenu jullit dem di sëyali góor boo xam ne du jullit ngir jaay diineem beneen biit yi yàq yu bari dafay ñëw ci foto yu tasaaro yi néew na xale bu jigéen bu amul album xale bu góor bu njëkk agsi si kër gi li ñu leen njëkk jox bu ñu la waxee dalal album la ñeete nga toog di seetaan lu araam di nga dem si Facebook bi xale yu jigéen yu bari yuy jàngee falaax comme falaax ñoo lii seen multaqal falaax boobu photo yu bare bare bare bare da si tasaaro te léeg dañuy def ay sorti yoo xam ne école bi du ko yëg ñu dem xale bu jigéen xale bu góor bi fopp xale bu jigéen subhanallah ñuy sangu waaw am na parent yi ci attaquant yenn dirigeant te loolu am na li ma wax man dama ko xam-xam yu wóor sax Facebook bi seen photo yi ñuy tasaaroo nañ ko muñ am na xale bu jigéen boo xam ne <coughs> benn xale bu góor moo ñëw caaxaankat la yàlla may na ko am na alal te ku jigéen day sëy jëkkëram daa tukki moom it mais waa ji daa indi caméraam teg ko di def ak moom film porno par film lii bi dugal ko si YouTube li ko jigéen kooku li ko njëkk a dal mooy dañ ko fase beneen bi it ñaari famille dem ba réeroo film bi yépp parce que waa da ko wàccee foofu bi mu ko wàccee far kele bi mu ko defoon mu wadd benn waay ñëw gis ko dugal kele bi di xool gis image bi rek seetaan ko jël ko yóbbu kele bi ba fi waa ji dëkk mu sànni ko foofu jël lii bi dugal ko si biir yuuto xale bu jigéen bi si fii la dëkk du tudd place loolu li ko indi mooy photo musiba beneen biir mooy waxtaan yi dox diggante góor yi ak jigéen yi ci jokkoo si wàll téléphone yi si wàll message yi nga xam ne mbëggeel moo koy moo koy moo koy lal loolu day dem ba jóor lu ñu tuddee ibtisage mooy chantage léeg-léeg ku jigéen ñëw photo la yow ku góor ko walla nga foto ko ci anam boo xam ne danga ko bett dem dem ba ñenn ñi monter yenn foto yi ak leneen ne ku jigéen ki ah yow il faut nga fekk ma palaas diw wala dinaa jël lii ma tasa dugal ko ci Facebook yut yenn yenn saa yi da ñëw nga ne ko pour ma wan yore naa sa dara jox ma sa bultus mu yónnee la rek nga yónnee ko message léegi bi image mu seetaan àddunam tukki kon SMS yi ñu ngi yàq lu bare bare léegi nag wasaayil yi ak yoon yi ñuy jaar ba mucc si lool si tënk bu njëkk mooy dellu si alquran ak sunna yàlla nee na wa man yaatasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim beneen bi fexe ba jëm jëmbat ngëm ak ragal yàlla si ci ndaw yi ngëm bi bu amee ragal yàlla bi mooy da lay ngay def lu baax sori lu bon beneen bi it ñu ubbi buntu ngir waxtaan ak jeunes yi ak xale yu jigéen yi ak fexe ba convaincre leen jële leen ci lu bon indi leen si lu si lu baax comme yonent bi ni mu ko defoon ak waajoo ñu nga xam ne dafa ñëw di ko ñaan di ko wax may ma ndigal ma dem jaalo kooku yonent salaa salaam ndaw la mais waxtaan ak moom ba jëlee ko ci loolu mujj ñaanal ko beneen biit ñu fexe boo ràngoo maanaam jikko yi nga xam ne lislaam moo ko jàngale maanaam valeuru lislaam yi ak principe lislaam mu ñu fexe ba mu nekk ci ñun maanaam jikko yi nga xam ne lislaam la ko jàng ay qualité qualité yooyu ñu fexe ba mu nekk ci ñun nekk ci ndaw yi beneen bi woote jëmale si yàlla ak digle lu baax tere bon boole ñaar yëpp di digle lu baax di tere bon bu ñu yem rekk ci digle lu baax bàyyi lu bon bu ñu yem aussi si tere bon bàyyi digle lu baax mais ñaar yëpp la ahlu sunna wal jamaa di boole al amru bil maaruf wan nahyi anil munkar beneen bi it al bu'du anil ajwaa'il fasida mooy sori barab yi nga xam ne barab yu bon la lu mel ni yenn place yi ma a masalan di génn xale yu jigéen di dem place te kooku jàmbur la ci yow wala ngeen génn yenn sort yi loolu yëpp mën na la jural fitna yoo xam ne dala yàqal lu bare bare sa àdduna beneen bi it fexe ba jigéen yi ñuy sol colinu lislaam loolu nag day jaar ci daawa ak jàngal leen lii di muuraay wan leen ne muuraay yàlla moo ko santaane du aada naar beneen bi fexe ba tànn ay àndandoo yu baax suñuy àndandoo na nekk àndandoo yoo xam ne dañ ñuy xiirtal ci lu baax di ñu sori lu bon su wàjj <laughs> beneen bi fexe ba di damm suñuy xef di sori lépp loo xam ne mën nañu yóbbu si loo xam ne maanaam mooy yàlla la lépp loo xam ne du lu baax buñ ko xool buñ ko fekkee fuñ koy defee ñu sori ko beneen biir teel a takk soxna fexe it ba ca yi ñu yombal ko bañ ko seeral parce que loolu yëpp day gàllankoor ndaw yu bare bare beneen bi sax dàkk di ñaan yàlla subhaanahu taala di ko jéggalu di tuub di dellu si yàlla di ko ñaan mu musal la si fitna yi jigéen ak fitna yu feeñ ak yu nëbb lii si gàttal moom mooy li nga xam ne moom la ñu tënkoon ngir waxtaan ko parce que waxtu bi moom moo jeex ñu ngi jéggalu bu baax a baax fooy nag dinaa ko bàyyi ku ko bëgg nag nga yëru hada wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu xayran ñu ngi jégal bu baax ndax xelal na leen ko baax ci biir waxtaan bi wala gisee ñu koy jégalu njëkk euh, moom ndax retard bi ñu am coobareem moom